asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak ci seen sant yoonu murit dafa am jiit njiit gi mooy sëñ Muntaxa ñun itam mu ngi ci gannaaw sëñ Muntaxa ñu ngi ci gannaaw ndigalam mu ngi ci gannaaw liggéeyam mu ngi ci gannaaw toppam lislaam ah taalibe yi xam loolu xam ne xàjjaloo amul ci biir luy yokk yoon wi lañ bëgg sëñ Mountakha xam ne ñun kilifa lañ ko def sëñ Mountakha na xam loolu xam ne kilifa lañ ko def te ñu ngi ko toppee kilifa itam te loolu du wàññeeku mukk te di leen gërëm ci accueil bi nga xam ne defal ngeen ma ko te mënuma woon a am accueil bu ko gën a chaleureux accueil bu ko gënoon a baax gën koy tedd gën koy rafet yaakaaruma ko woon sax léegi nag li nga xam ne moo ëpp solo ci lépp mooy xalifa bi li nga xam ne dañ ko war a sumb liñ war a sumb nag jumaa ji yeggali lu koy lu koy yeggali lu ci am solo la bu ma yeboo ko doon xaaj ñaari xaaj jumaa ji rek dina jël plus de soixante pour cent liggéeyal maam Mor Jaara ci li nga xam ne dañ ko bëgg sumb ci la bokk maam Mor Jaara yitteem la woon njaboot gi nekk benn waaw bu mu am xàjjalaw bu mu am ŋaayoo bu mu am meroo mboolem luy ñuul ci luy yàq mbokk ñu seppi ko teg ko fële te xam ne loolu duut li Mame Mor soxla waaw beneen bi nga mooy njaboot gi gis njaboot bi nga xam ne itam euh, seeni way juur génn nañu àddina ñu nekk njaboot goo xam ne gi ñun dinañ leen mën a taxaw ba nga xam ne duñ jooy baay duñ jooy dara wax dëgg yàlla ah dama yaakaar ne nag ñett yooyu buñ ci yeggee ba def ko waa kër Maam Mor Jaara ca kanam rek la jëm waaye duñ dellu gannaaw luy delloo gannaaw nag waa kër boroomu saam ñun ànduñu ci ñun lu koy jëmloo kanam rekk lañu ñu bëgg xeebuñu ci kenn nag ku ci am xalaat bu rafet mbaa jëf ju rafet bokk nga mën nga bokk ci kuril yi loolu nag itam lu am solo la boolem koo xam ne kii liggéey moo la tax a jóg woo nañu la yaatal nañu la may nañ la cër bu la mën a def loo li nga yéene ci waa kër borom sàmm loolu daal moom laa amoon lu ma bëggoon waxagum wax a guum laa mën a wax parce que wax ji yemul ci tey waaw wax ji continuer la wax ji continuer la waaye nag comme ñu ngi nekk juste au début euh, du ma guddal wax ji dama koy gàttal